jug di yëkkati di wax ay kàddu yoo xam ne méngoo li am il faut ñu arrêter malheureusement nag yàlla moom bu la nattoo lenn li nattoon na la ko ba pare mhm. amet heure bi jot na. heure bu jot na waaye euh, ah. dernier point bi la ñuy daal di. aborder rek 30 laa waxoon. 10 euh, euh, minutes rek. 13 minutes non yii amet non 13 moo matul. vite kon ci kaaw ki nga xam te moo di Samuel saar rek parce que normalement tey lañ ko war a dégluwaat jébbal ko wala bokk ci kanamu li nga xam te moo di enquêteur ginnaaw bi ñu ko defee en garde à vue moom Samuel Sarr kon jamono ji mu ngi ci ab tourbillon judiciaire. ndax le directeur général de la Sénélec Papa Toby Gueye moom jot nañ ko déglu ci mbir moomee ba noppi waaye itam ay eh, plainte yoo xam te ne eh, jóg na contre kii di ab lay Dia bu Sénico ak eh, Tayiru Mbay nga xam te ne représentant du cabinet Mazar la maanaam daal am na ñeneen ñoo xamante ne daanaka ñu ngi leen di tudd ci li nga xam te moo di ca mbir moomee moom mi leen nag liñ koy daal di toppee moo di mbirum présumé détournement bu toll toll ci deux milliards de francs fa euh, ginnaaw ab audit boo xam te ne euh, cabinet bi di Mazars daal dina ko euh, def kon moom Samuel Sarr nag weddina li nga xam ne moom moo di jëf yooyee nga xamante ne moom moo ko daal di yóbbu jamono ji foofee ñu ko daal di teg ginnaaw plainte boo xamante ne daal dinañ ko ko plainte bi mu wàccee ca aéroport international bu Blaise Diagne niki àjjuma lañ ko tegoon loxo mel ne kon am na yeneen mbir yu ci yees daaw démb ñëwoon nga ci lu yaatu rapport ak ay fait yoo xam ne eh, yu ko concerné la waaye tey mën nañu xaar kon moom itam euh, mu am beneen tournant par rapport ak dossier boobu bon maa ngi ziar kilifa gi <laughs> sànq kële door <laughs> dama envoyé message maa ngi koy ziar. Mhm. nag dooree ndawaa nag jot na moom ma jox la mbir yi. ngay ngay ngay jàllale ndax na ngay waxee leer na xam na. am na solo maa ngi koy maa ngi koy ziar. Mhm. ji nga amet mhm. lobby bi gën a rëy ci réew mi di Sénégal ci Senelec la nekkee mm. man li ma bëgg a xam mm-hmm. mooy euh, Samuel Sarr waa mm-hmm. fan la amee xaalis bu mu bokkee ñi samp lool mm-hmm. muy Pape Demba bi téyoo même le DG Senelec bii ci boppam am ah, maanaam dafa am lenn lu nit comprendre maanaam koo xam ne moo ñuy jaay courant. Mm. le DG ki jiite Senelec mm. da cee am part da cee war a wax mm. da cee war a joxe kàddoom lan moo tax képp ku nekk Senelec boo ca jógee dem samp ji sa centrale yoo xam ne da ngay xool nan ngay jaay courant Senelec. Mm-hmm. beneen mooy lan moo tax mënuñoo nangu. par rapport ak milliards yi nga xam ne yëpp état da koy subventionné ba moment bi nga xam ne moom laay wax ak yow mënuñoo am comme centrale bi solaire bi nga xam ne moo am Malicounda ndax tey West Africa Energy bii li mu samp si plus de deux cent milliards deux cent trente milliards foo xam ne état da lay subventionné lu mat quatre cent cinquante milliards pourquoi ñooñu mënuñu ko defal seen bopp léegi nag xam nga mbiru seeni bopp la fi ñu toll nii ñoom ñoo jotee seen biir ñoom ñoo jote seen biir paar bi nangam paar bi nangam peut-être Samuel moom la yàlla may moo gën a xam expérience moo gën a am expérience ci loolu euh, moom lañ ne moom moo leen moom moom moo leen moom moo leen dóor deux deux milliards ginnaaw cabinet bi bi ñu ko tegee bi ñu gëstoo xool mais comme fi ñu toll nii cool coowal seen biir ñun nekkuñu si coow loolu xam nga ñun bañ cool la ñu ne mm-hmm. lan moo tax encore une fois li ñu war a xam Samuel fan la jëree xaalis bi mu war a investir foofu beneen bi mooy lan mooy si responsabilité wu Sénélec hmm. pourquoi ku jugg Sénélec ba génn rek ne ñoo ngi dem xoole ji lu ñu tegee dara loo xam ne dañuy jaay Sénélec courant hmm. est-ce que jotul ñu def audit fi nga xam ne moo di Sénélec hmm. est-ce que jotul même le DG wu Sénélec bi ñu xool ndax waaye am na ay coupures yu fi am yu bëri ay sabotage de ci courant bi te système bi dafay ne deewagul de mais doy mais Samuel imagine àndul ak Diomaye ak Sonko ñoom ñu am seen West Africa Energy di jaay courant mhm. ñeneen ñëpp lii dañ jour boobu ñoom ñoo joxe courant mhm. mais mënuñoo def sabotage buñ ko defee courant dina am ci réew mi c'est juste rek pour wax la ne naam ñoom seen biir ñoom ñoo nekkante euh, di di di di plaintanteeg yooyu mais lan mooy si rôle senelek man seen jol seen jote ñoom la seen biir mais li ma bëgg a xam mooy fan la Samuel jëlee xaalis <laughs> bi mu defee foofu li ma bëgg xam lan mooy si responsabilité wu waa Senelec mm. li ma bëgg a xam lan moo tax courant bi di gën a seer lan moo tax bu nit duggee Sénélec bu génnee rek dina am gan bu mu jéem a àndal pour jéem a xool nan la ñuy négocier est-ce que jotul Sénélec ñu xoolaat ay mbiram waaye courant bi nii yaxanal lañ waxoon waaye diisal la mujjee de <laughs> en tout seen biir la nañu xool yoon lam cay def. Mhm. ñoom ñooy joxañante ñoom ñoom la waaye West West Africa Energy kii am na quinze pour cent kii am 15 pour cent kii am 15 pour cent kii am 15 pour cent euh, ñoom la seen biir ñoom ñoom ñi ànd ñoom ñoo plétante waaye la ñu jàpp rek mooy. Samuel la ñu jàpp ne bu ñu defee seen rapport ba pare am na 2 milliards yu mu leen dóor mhm. Samuel nee na aussi defaat na li nga xam ne moo di plaintam nañu xool après lan moo ci xew ji mhm. waaye ñun askan wi li ñu bëgg a xam mooy responsabilité wu Sénélec lan la si pourquoi Sénélec heure bu ñu waxee mu ne ñee laa bëgg a jege pourquoi Sénélec jëlu ay responsabilité mba tey teg ay centrale boppam pourquoi Sénélec saa su ne jënd lay gën a bëgg a def ko investir te la muy fay mën na cee investir beneen bi mooy ndax na la ñu mën a nekkaate si réew na ma ko waxee woon démb waxaat ko tey nan la ñu mën a joxee suñu ndox nan la ñu mën a joxe suñu courant. Mhm. loolu lañ ci wax waaye lu ci mënti am après ces information incha allah dinañ ko ci àndi. Mhm. incha allah incha allah rabbi kon euh, ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax Daouda Djigal xam naa daanaka yegg nañ ci euh, càppaandaw li nga xam te ne moom di émission bi di gërëm bu baax a baax mbokk internet yi Seynabou Dramé Soda Mariam Sey Mia Manga. Euh, Moussa Ba Yvonne Diawara Rama Ndiaye euh, Taha Thiam yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax Biboulaye Touré ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Amadou Niang itam naka noonu Ndeye Ami fal Omar Niang ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi woon ci direct bi di seetaan rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee les sous-marins nga xam ne ñu ngi si biir waaye kenn du leen dégg waaye itam du ñu daal di réagir ñu leen di gërëm bu baax a baax. Euh, Cheikh Ibra jaata jaajëf ñu ngi lay ziar bu baax daawra jigal kon je pense bien que tey respecté nañu heure bi ñu ngi lay sant di la gërëm. non respecté heure daw euh, heure kay respecté woo ko ndax tey ah, ñaanoon naa la huit naa la tey neuf heures et ñu def une heure trente waaw xam nga rek internet yi ñoo ñu téye ah, ah, bon internet yi après Adama Tunkara ñu ngi lay ziar bu baax Ngoné Faye après man ngay sonal mosoo respecté heure mosoo ko respecté ah man bu fekkoon ne dañuy retard mosoo ko mosoo ko mosoo ko respecté. Sarr Ousmane jaajëf. mosuma laa ñaan bés dina ñëw nga ñaan ma nag boo soxlaa rek jàppal ne lu ca mën en tout cas ñoo ngi leen di jaajëfal sant leen bu baax a baax di leen wax ñoom ñëpp bon lundi euh, weekend bi euh, semaine bi ñu dugg ni yàlla suñu borom def ne ba kenn ku ne looy wut lu ne am ko réew mi yàlla na fi jàmm sax réew mi mooy ña ñu laalante ña ñuy yaakaar ñooñu yàlla na ñu jote yàlla na bu kenn jote ñaari ñaari nit daal yuy ànd rek ngir am yéene. Mhm. muy sa sëy mooy nga nekk ci état wala leneen ak leneen. yàlla na suñu boroom def ko loolee gën a mën a wéy. ay ah, dara xam nga filmé xam nga filmé woon naa la ngay nelaw si campagne bi nga mer yeewu ne la moo tax bu ma la filmé ma ne la filmé wu boo xefulee. <laughs> vidéo yooyu il faut ñu def ko compilation. boo xefulee nag. sa vidéo bi samay nelaw ak say yow. camion nelaw ay dara waxe fu lekk waxe waxe fu lekk camion sono bi nelaw yaa ngi ca doon nelaw dinaa ko génne da nga bañ a bàyyi may def émission nga ne. dëgg yoonu Touba bi anto <laughs> bu ñu jógee daara di ñëw waa ji ni mu doon nelawee ñaaw na maa ngi ni jaajëfal sant leen bu baax a baax di jéggalu bu nekkee ne kàddu yi am na si dara lu dëng beneen bi Ameth fa laa koy tëjee. wax nañ laa fois passée ci benn kàddu mhm. l'affaire de kenn ko jeex yooyu jege woon Cheikh Bara mhm. euh, euh, mooy Baye Ndiaye mhm. euh, par rapport ak Baye Mbaye te ñu teel ko box baay bi noonu ndaxte liberté provisoire lañ ko may am ko jaaree sama benn moroomu taskatu xibaar ne waxal ak daadu li muy def dafa ñaaw ndaxte xamul nu mu demee ndaxte ma ne ko sawaay lenn laa lay wax waxaat la ko man ci yoon bi ma nekk demal laajte ji